boo ko jàngatee. waaw il faut il faut ñu am loo xam ne dañ ko war a comprendre ci mbir mi. du loo xamante ne dafay door wala du loo xam ne dafay lu bees. partie bu commencé. di am doole di màgg. dafay am loo xam ne dafay dafay dafay màggandoo ak parti boobu. mooy dafay màgg ak ay leader. suy màgg ak ay leader am na ñoo xam ne bu ñu attaqué parti bi ci extérieur ci biti. jotuñu parti bi dañuy attaqué face à parti bi ci intérieur bi ci biir la ñuy attaqué parti bi mmh. Mmh. yaa ngi comprendre li mmh. su ma nekkee ci biti di sànni duggul damay fexe ma dugg ci biir sànni pour mu jàll te loolu à chaque fois danga doon gis dafa ànd ak état bu parti yëpp amoon na benn moment pro Idi lañ daan wax ak pro Macky mooy bi Idi nekkee si ñool ñool yi ñu ne képp koo xam ne da nga jegoon Idrissa Seck yaa ngi am jafe-jafe parce que moo nekk moom la Abdoulaye Wade di déglu mi fitnaal waa kër Idi bañ naan pro Idi yëpp dañoo nekk di commencé amoon na ay pro OTD Ousmane Tanor Dieng ak ay pro Djiboka donc ça a été toujours comme ça loolu fi mu jëmee parti yi mooy ay scission la leen jëmale ay division Pastef muccoon na si loolu lan moo taxoon mu mucc si parce que dafa am nu ñu doon évoluer lépp dafa concentré woon ci Ousmane Sonko. Mhm. moom la ñu moo porté projet bi moom mooy leader charismatique bi moom mooy ba ñeneen ñi bu naree jóg tuuti sax dañuy wàccee seen bopp tànk que Sonko ngi fi. Mhm. pour gën ko jox visibilité pour gën ko may mu yegg fa mu bëgg a yegg. Mhm. ñu dem ba ñu caabi féete ko ginnaaw léegi mu am beneen équation bees bu ngeen jàkkaar lool mu tànn un numéro de te ñëpp xam nañ parti ni muy doxee parfois on n'est pas obligé. beneen personne au delà du leader mu def consensus. Mhm. mais ñoom réussiroon nañu ñoom ñëpp ñu dajaloo danku ne Ousmane Sonko mooy Jomaay. ba ñëpp mhm. d'accord ci ànd ci. léegi Macky Sall woote dialogue bu wootee dialogue mu ne dañ dem am ñu ne demuñu ñu ne dañuy dem mais boo nekkee ci partie parti dafa am lu ñuy wax discipline de parti. Mhm. sinon kon nañ ko tas comme ni ko Simone Veil doon waxee philosophe française boobu mu ne nañu nañu il faut dissoudre les partis politiques parce que mhm. discipline de parti mën na see bokk li nga xam ne. Mhm. dafay bloqué mooy démocratie mais dès l'instant nga bokk ci parti rek tu tenu tu obligé nga respecter discipline de parti boobu. Mahfouz ñu nekk ci parti ñun ñii yow d'accord mais mën nga mu ne Moustapha man d'accord foofu la nit ñi di responsable di wuutee ci biir parti di gis di réunion mu tàng jër mais majorité bi emporté ko mm-hmm. ngeen dem réunion mu metti nga ne non ñun dañuy def lii dañuy génn marche ñu ne kenn du marche dañuy génn marche du marche majorité bi ne non saa ñun duñu marche mais est-ce que da nga génn nga dem plateau ne dañoo war a génn marche mm-hmm. doo dem da nga dem nga ñibbi sa kër nga toog nga jàpp sa njàmbur ëllëg su fekkente ne marche bi amoon avantage nga woo leen téléphone ñoom si bi nga ne gars yi leen de ah ba ma leen ko gis ngeen lii te ba si kanam ñu interpeller mën nga taxaw ne ba ma toogee réunion lii laa waxoon lii ak lii mooy sama position mais tu n'as pas droit nga dem ci plateau autant euh, pardon nga dem ci plateau di marcher à contre-courant mhm. euh, par rapport ak li nga xamante ne moom la idéologie loolu boo ko defee dafay mhm. mel ni yaa ngi yàqal li nga mhm. xamante moo di moo moo di parti bi te loolu képp koo xamante ni yaa ngi tënku ci parti bu ñuy wax parti politique même si bien vrai que dañu koo dissoudre mais danga war a sàmmonte ak moo tax ma jàpp ne erreur bu jiitu bi moom def na ko citoyen li def na ko parce que loolu du woon seen taxawaay. mais Pastef dafa am jafe dafa am jafe-jafe boobu ah. tout parle. loolu waxtaanu biir néeg la woon. c'est-à-dire non non dafa am ñoo xam ne si nii xam ne si nii dañuy ñëw ne Pastef la ñu bokk. Mhm. Eh, di waxee ci turu Pastef te amu te amuñu fa benn poste de responsabilité. Mhm. sa à dire Pastef dafa bëri ñuy wax ci turam ñoom ñaar ñuy wax ci turam ñoom ñaar ñëpp kii dafa yor te li ñuy wax engagé wul engagé wul maanaam bureau bureau mm. bureau bureau xam nga fan la problème ndëkk amee ak pour man incohérence ndëkk amee Mahfouz mm. ma nekk porte parole nga invité ma wala sax bu ma dul porte parole ma bokk si kuréel ma ñëw di wax naan li may wax sans engage que moi mais déjà problème am na problème mi ngi am

nga wax li ngay wax mu engagé la. mais mais da koy sol. Mhm. boo bëggee li leen di wax leneen nga dindi ko teg na ne li may wax kat da nga koy gis si homme politique ah. si wax ba sax li nag ça n'engage que moi. Mhm. yaa ngi indi jiixi jaaxa bopp nit ñi. Mhm. parce li la engagé wul noonu. moo la engagé ba nga toog fa. moo tax ma jàpp ne yooyu ay erreur la yoo xam ne waruñu koo def te actuellement dafa am benn entreprise boo xamante ne waa camp bële ñi ngi koy def. mooy préparer seen ay nit mandaté leen ñiy investir presse bi di wax ay pro Diomaye pro Sonko. déjà ñi def voix discordante ñi yëpp nga gis ne dañ ne ay pro Diomaye ay pro Sonko lañu mhm. ñooñu dañoo bëgg Sonko ñëwaat mhm. ñi ngi commencé dugal jeexi jaaxa si bopp nit ñi mhm. te buñ leen prêter le flanc dinañ leen fa dóor ba ñu tourner loolu moo tax ma jàpp ne il faut actuellement ñu redoubler de vigilance ñu redoubler de vigilance maanaam ñoom dañu jóg loolu amul loolu amul pro Diomaye pro xam nga lu tax xam nga lu tax ma wax ko mm, mm. ku dugg ci pro Diomaye ak pro pro pro Sonko tamit da ngay indi sa bopp problème. Mhm. parce que ñoom Ousmane Sonko la ñu gëm ñi fa ëpp bokk ñiy voté Ousmane Sonko la ñu gëm. Mhm. Sonko bu ne leen voté leen Diomaye yow boo fa nekkee di pro pro loog. di def nii loolu képp mais bu fekkente ne non xam nga le problème mooy li loolu li ko indi mooy ñoo xam ne si nii peut être jege nañ Ousmane jege goo xam ne si ñoom bu ñu sañoon Ousmane. mooy toog loolu bëri na parce que bu toogee ci lay mooy seen avantage. am na ñoo xam ne si nii eh, Diomaye moo leen gën bu Diomaye bu Diomaye toogee moo ëpp avantage que bu Sonko toogee donc loolu mooy indi tiraillement yooyu di am ci xam nga

jéem mm. nañ ko côté bu ne côté bu ne jéemee nañ ko donc waruñu leen may buntu boo xam ne ci la ñuy jaar mm. naan diw pro la diw pro la diw pro la pro amul am buñ fa nangoo pro rek problème am na mm-hmm. buñ fa nangoo pro problème am na léegi nag li leen war mooy ki Ousmane Sonko tànn la ñuy àndal et puis mm-hmm. seen sortie yi ñuy def nii man ànd naa léegi ànd naa ki yow mën nga sa président mën na bokk ci kuréel bu ñu wax F25 saisi ne demuñu ñoom ñëpp ngeen ne période bi nañu xool lan mooy intérêt il faut il faut ñu xam ne dialogue bi ñoom seen intérêt nekku ci xeex bi dañ koo xeex ba nekk si ñoom maxtal bi te ñoom maxtal gi fi nekk nii ñoom ñoo gën a nekk ci position bu confortable que ñu jàkkaar lool ku dem banaa la yónnee ma sa mandataire mm. ku dem banaan nañu apaiser ku de koo xamante ne danaan diisal fu mu toll mais ko xam nga ne yaa mën mm. li ñu muñ xaar ko mm. ñëpp xam nañu affaire bi courbe bi ban ban yoon la jëm mm-hmm. lan moo fi jar parax paraxee rappi rappi foog na ne suñ demee dialogue ñu nangul ñu ko no man neewoon naa fii Khalifa Sall su ma doon moom du dem dialogue bi passé te day bokk ci élection duma ma dem te damay bokk parce que lii raxas Karim daf koy raxasaale sinon kon dañ naan dil nag moo ko taxoon nañu parce dafa ñëw ñu lijjanti ko mu dem mhm. mais am na yoo xam ne tey jii Pastef même bu ñu demul bokk ji Bassirou Diomaye même à supposer ma fa ñu tas conseil constitutionnel Diomaye liste bi jaar na ba noppi mhm. même conseil bu ñu ko taxoon ne dañuy indi cour constitutionnel liste bi mooy dem kon wax ji jeex na mhm. donc loolu il faut ñu def ko seen bopp rebelote bi ñuy wax noonu loolu loolu sénégalais yi duñ ko nangu amul dil amul euh, tappale amul amul lu gën a màgg loolu

musul jàppale projet bi. dëkkul ak projet bi ngeen jox ko tey yàlla may na leen koo xamante ni mi ngi seen wet. bokk suñu sos parti bi ñi xam parti bi ñi bind teg sa parti bi léegi loolu mhm. a tas seen mhm. war a revenir à raison ñu xam ne dialogue bi saa bu ñu ko woowee tas na kër dialogue la boo xam ne day tas kër. Mhm. saa bu ñu ko wootee tasoon na yeewi bi paa bu ñu koy bu ñu nangu mu tas Pastef. Ah, te bu ñu nangu mu tas Pastef da fekk ñu bëgg ko. <laughs> parce que Déthié Fall Déthié Fall wax na

fi ñu doon xaaree ñeneen ñi ngeen taxaw naa no bu ñuy demu ñeneen non non non il faut parfois nga xam booy lire lecture politique da nga xam ne fi ñu toll fi mbir mu toll. Mm-hmm. Pastef li mu am ni mu nekk ci position bu confortable ñeneen ñu ko. te loolu dafa rëcc Macky Sall bu yàgg mais boo yaakaar ne si loxo Macky Sall la nekk ba tax ne da ngay wuy ji yaa ngi juum nekkatu ci loxo Macky Sall fi ñu toll li nekk ci loxo mooy organiser élection dem te élection.